ma doore ci tuddal yàlla gam nga bàkk ko te jullil yoneen sëlmal ci moo mag ña topp ko te santit sëriñ tuubaa mi tax tey ñu talti ko ka waggar ndonal yonneen ba xuraan mu jàpp ko ka def tëll rek dëgmal boroo mam ba jublu ko musul teggi ab tànkam ci xuraan ba jàpp ko ci téere boroomam bii la daa sax di balluloo di feeñal la réeroon ay arab lépp way na ko la sëñ Bamba yéemee naar ya yéemee ko ay nitam lu dul fonk téereb yàlla bii rekk doonu ko sëriñ Bamba alxuraan la jàppoon di wéttalam di soppeem di waayam ju mësul dem ba bàyyi ko liggéeyal ca yonnentom ba ba may ko cey ngërëm boroomam muril koy mbooti xuraanu jox ko ko mu far moom ko moom goo xam ne day sax ba saa taxaw sëriñ bàmba ak quraan ndegam ñaar la xawma ko ndi quraan la deesul xam la biiram ya lépp lëm sëriñ bii la ko gay sax fi ñun nit da ko na lee yéeme mbooleem kuy arab ndaxte génn ko la kiy yéeme mbooleem kuy ajam ñun ñu topp ko borom bee wonee kim tànn ci quraan di ay waxam mu tànni sëriñ bii ci fan ñu jàpp ko ka leen def ni soow ak suukaray noppalub xolam ku leen jàppe ñaari sonn lum sànni rëcc ko ci téere boroomam bii la tëb bee ngëneel yu doy yi tax tey ba ñëpp yi ñéem a koy ñëw di xool si ko ba muy raase may yoo xam ni ak dund koy jotoo la jug ngay ci xuraan def ko raasa mu yéege ko ba naree nërmeelu ndar jéede ak ngëmëm la delloo ci alxuraan ba jàmbaar jafeelu ko ndaxam moos bu surgay baax di sel di sàlloo mbégum sangam te koy raas yi gis mbég ma rek daw na topp ko sëriñ bamba moo def moom di surgab yoneen bu wér ci xuraan la jaaree sàkku mbégteem ba làq ko te it xam dayoo xuraan na tax lenn doytu ko ci wéttal de mbaa fekk lépp loo xam ni dal na ko la dëggal waxam jam wax ni buur yàlla def na ko mu far moom ko daa leer naññ firnee jàpp ko fu waay dégg fu ñu wootee fi ab beqi wax ma ko bu dul waa këram goo gis faneen mbaa nga dégg ko këyit daa amul xool fenn foo wax ñu bind ko bakaamil ba farmat sëkk ci ndaw yu topp ko bu lii rek day yóoti firnde way wii ma xat ko te bindaat fi way woo xam ni kuy di tegg ko taxaw naa ni dunduk sëñ bi xur ànde takk ko ci aw way da yombul kenn kuy jéem ka tàyyi ko salaatan wa tasliman min allahi sarmadan wa alin wa sahbin feeg min def yaa wa alin wa sahbin feeg min def yaa wa salaamu ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin ba suur Bamba saa wax ji takk ko Bamba laa xam man te gëm naa ko gëm bu wér te saa Bamba sopp ko sëriñ bee di géejug yàlla waaju raw ku mos ko masal jantub ngëneel la bu ràññeeku sëriñ bee di géejug yàlla waaju ko tàbbi raw ku mos ko masal jantub ngëneel la bu ràññeeku fa pey yàlla dox fab alxuraan def ko wéeruwaay barangoo mi daayu kumba mbootam ya topp ko ilallahi bil qur'ani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla bambay ki wax nu ko amul kem amul maas bàmba nendam amul fi nun amul ci bii daan yàlla buur bee ñi tànn ko sëriñ kon jaajëf sa woy mi la neex na lool tëlëm na xikam sàlloo na ngëm-ngëm bu na buur fay la aw yiw jox la aw fan wu gudd lool te ànd ku wér siñ fàllu kii topp woon na ku jub di maagal li yàlla maagal